toujours pour vous servir amee internaute Sénégal 7 ba léegi ci biir kër gile donc toog nañu ak beneen actrice koo xamante aussi noonu la bare ay soppe fii ci Sénégal à travers la série famille sénégalaise Ngoné ziar naa la bu baax a baax am mbégte tey fekk si la fii ci kër gi donc euh, ngeen nekkoon tournage ñu war a seq nag waxtaan bu yaatoo yaatu parce que yow euh, da ngay dawan ah, gars euh, <laughs> a beaucoup de questions yoo xamante ne yi quand même koy posé te tey ñoo lay seetaan. déjà maa ngi lay fay d'abord di la nuyu di nuyu suñu téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers la Sénégal 7 di leen ziar bu baax a baax a baax. macha allah alors première question bi ressemblance bi nga xamante ne nuroo bi xa bi nga xamante ne am na sa diggante ak code man sànq ba léegi dama leen di jaawale en fait <laughs> euh, on dirait que yéen ñaar ay seex ngeen nu mu demee noonu. yàlla rek moo def ñu nuroo fii lañ xamante si kër gi mais ñëpp dañuy wax que dañu nuroo man parfois nit ñi dañ may dab ci mbedd bi dama wax code damay ree rek duma leen leeral dara parce que c'est vrai que nit ñi wax ni dañu nuroo nag. non mais vous vous ressemblez tellement ñuul ñu ñuul ñëpp nag dañu nuroo. Ah, la plupart boo ñuulee suñu gisee genre ngeen di nekk tout le temps dañu naan yéen ñaar da ngeen nuroo lu ngeen bokk nana nii nana mm-hmm. ne bokkoo leen dara amuñu benn lien ah. d'accord fii ngeen xamante fii la ñu xamante on a de très bonnes relations nag macha allah. super super mhm. super alors euh, dama ko tëpp ñu ñëwaat ci loolu euh, présentation bi Ngoné le Sénégalais yi xam euh, ci série bi mais tur bi dëggantaan lan la. tur bi Mami Sow la. Mami Sow Mami Sow waaw. juddoo fan. Grand F la <laughs> mais booy Kër Massar laa quand booy Kër Massar. loolu moo tax nga graw diggante euh, Grand Yoff ak Kër Massar moom ku fa juddoo yaroo fa donc euh, dafay nekk lu graw <laughs> bàyyil tooñ. su <laughs> super donc sa euh, diggante ak théâtre kañ nga ko tàmbali passion bi loo yàgg am la depuis xale wala loo xamante ne daf la dab la. ah jeune dañuy passionné de théâtre de. animation de leneen ax leneen parce que genre man nekkul famille sénégalaise laa njëkk def mais famille sénégalaise moo tax nit ñi vraiment famille sénégalaise moo tax man ma xam ni que am na benn benn talent bi moo moo tax man ma xam ni que am naa capacité jouer yenn rôle yi parce que Ngoné ak Mamy c'est carrément différent Ngoné ak yow euh, c'est quoi la différence euh, tey euh, gis nañ ci théâtre bi une fille jolie correcte boo xamante ni aussi nekk ci biir kër gi ak ay nu ñu ko waxee wujju ay njëkk du mm-hmm. moins donc sa frère aussi Marlo gis nañ aussi relation bi nga xamante ni moo dox ci ñoom mais c'est quoi la différence entre yow rôle bi nga joué ak dans la vraie vie naka nga mel exactement déjà Ngoné c'est une personne je suis douce elle est douce mais eh, elle est pas elle est pas comme comme ngoone Ngone Ngone dafa nangu ngoone lu ñu ko teg mu tegoo ko ngoone dafa ñàkk fayda sax limite te mami elle est pas comme ça man damay dama dama dama bëri histoire damay bañ comprendre nga te Ngone lu ñu ko wax rek mu nangu lu ñu ko teg mu tegoo ko moom amul problème euh, rôle bi moom moo ko laaj. waaw voilà est-ce bi nga ñëwee ñu jox la euh, cas euh, rôle bi bi nga ko xoolee gis nga ni lu yomb interpréter la. ah dara yombul. fii dara yombu fi nga nga def mu neex nit ñi yàlla moo koy def mais tamit am nañ si ndimbalu suñu maison de production bi ñu nekk ndimbalu réalisateur yi et tout parce que tout début elle est difficile mais boo demee ba nit ñi di la bëgg ndax ngoone bi nga nekk di la bëgg ndax da ngay jouer sa rôle à la perfection du sama du sama mëneef a fait mhm. dañ ma jàppale mhm. parce que dara yombul fii mhm. surtout nekk théâtre nga jóge si sa personnage dem sa personne dem si sa personnage c' autre chose mais quand même macha allah ñu ngi koy sant yàlla parce que réussir nañu rôle bi. macha allah donc ci loolu laa bëggoon dégg sax on voit que ni rôle bi amoo la ci benn jafe-jafe pour interpréter ko. donc dafa mel ni que ni formation bi en tout cas mu ngay mokk. ci ñi nga xamante ni ñoo la jàppale. ci jàppale boobu euh, tey ñan euh, ñoo jàpp ci euh, ngoo liggéeyu mami bi muy nekk xale tette ko tey ba nga xamante ni tey mën na embrasser carrière actrice si facilement je veux dire ay parents relation bu particulière nga am ak ñoom ak jàppale bi soutien bi ah man samay parents relation bu bu spéciale laa am ak ñoom man samay parents méttiwuñu comme ñoom comme comme sama génération mhm. dañuy waxtaanee lépp amuñu sujet tabou dañ may xelal lu ma bëgg dañ ma si accompagner ñoom amuñu problème mosuma mu bëgg ne damay def théâtre wala damay def animation wala may bëgg def leen ñu téye sama loxo non dañ may jàppale di ma épauler di ma accompagner très franchement. kan moo ci gën a nekk sa xarit yaay wala papa man. <laughs> je vois jigéen ñi dañu gën a nekk ak seen papa. <laughs> waaw c'est vrai que sama papa sama xarit la vrai que sama sama xarit mais man xam nga dama bëri yaay sama sama yaay la sama sama yaay la man bàyyi rek kii si sama papa. <laughs> ma bàyyi la ak ci sa papa. Mhm. Eh, lan moo gën a ci moom ci sa eh, ci sa dund sa relation ak sa papa. sama na de sama papa. li ma marqué si moom mooy en fait lu neex doom neex na ko lu neex doom neex na ko kenn du laal doomam fa bëgg doom ba pare suñu xarit la day waxtaan ak ñun kaf foo ree wéy genre papa bu spécial la am très franchement mhm. c'est trop mon pote ton pote quoi. Mhm. alors super euh, le succès comment est-ce que naka nga koy dundee euh, séeréer la bu am succès. tarkalla macha mhm. allah laf cat euh, nga nekk Sénégal nekk jigéen am succès wara dugg ci koñ yi war a dugg ci mhm. dem ci xew yi foo tourné ñi ñi naan ko mu ngi ne mu ngi ne donc lool noonu yëpp comment est-ce que tu le vis. Ah, je le vis naturellement. parce que succès yàlla moo koy def si nit c'est pas parce que dama feeñ ci famille sénégalaise rek moo tax ma am succès c'est vrai série bi am na succès torop mais en fait c'est parce que sénégalais ñoom ñoo lay may succès boobu noonu ñoom ñoo lay bëgg donc suñ la bëggee da ngay da ngay saafonte ak ñoom rek nga mel ni nga mel du du da dem dépasser ni nga mel du da ngay wane ni parce que ngoone nga tu restes naturel nga saafonte ak ñoom parce que ñoom ñoo la bëgg en

dañu war a mel ñoom ni nga xamante ni ñoom nañ ñu gisee ñoom noonu la ñu bëgg ñun ñu mel waruñu mel comme ñun ni ñu neex parce que ñoom famille sénégalaise moo tax ñu bëgg ñu donc dañu war a mel ak redoubler d'effort ci li tax ñoom ñu bëgg ñu parce que Séné famille sénégalaise fu toll sénégalais yi tax ñu toll donc warul tax ñun succès bi mu am warul tax ñu yeneen sëriñ yi ñu ngi seen kaw de ñu ngi suñu kaw ah. ñun yëguñu ko sax <laughs> ñun yëguñu sax beneen série am na en telement hmm. tellement famille sénégalaise moo koy toj You're number one, quoi. Numéro uno. <laughs> en tout cas, les chiffres le disent, hein, parce qu'on voit que sur euh, YouTube, mm -hmm. en tout cas, Ringis Vidéo, ça explose les millions de vues. Mm-hmm. Euh, voilà, pour euh, le plaisir donc, de, de vos fans. Mm-hmm. Euh, Fiji, Djahala Rek, moi, je on sait que carrière ou jigen, ci showbiz, bu ñu koy wax. gars yi yàgg na yàggul mais il peut y avoir beaucoup de choses yoo xamante ne daf ciy xew mm-hmm. ci ay tolof tolof ah, ay euh, mbir yooyu jànkonteel on sait que ni voilà di sa diggante aussi ak góor ñi di nga gis façon bu nekk est loo xamante la Ngone jot na ko dund ci carrière am wala est la voilà ci carrière bi nekk ci kanamam aussi lu mu préparé wala pour dund avant ah très sincèrement gisuma dara mm-hmm. genre lépp ngi lépp ngi normal ci man lépp ngi nooy comprendre nga mm-hmm. lépp day ñëw naturellement amul benn yoon loo xamante ni dund naa si loo xamante ni surtout ak góor ñi loo xamante ni c'est vexant wala loo xamante ni metti na ma yàlla ñu baax rek la ma booleel fii macha allah on est bien traité doom lañ ci kër gi am nañ fi ay mag am fi ay rakk euh, maa ngi liggéey feneen tamit foofu tamit dara mettiwul ñëpp samay xarit lañu samay mag lañu samay pap lañu. donc amuloo benn jafe-jafe ci showbiz mosuloo ci dundu galère da nga ñëw lépp nooy ma ñëw rek lépp nooy xam yàlla moo koy def nu mu demee noonu yàlla mooy def loolu yàlla moo la nooyalal affaire yi ko en tout mhm. cas dañu lay euh, remercier bu baax a baax mhm. ci euh, disponibilité bi euh, sa relation rek ak Soxna Bator merci mhm. tout le plaisir est pour moi Soxna Bator sama sœur la <laughs> sama sœur la sama xarit la sama lépp la sama confidente sama sama sœur la Soxna Bator sikk na si théâtre bi <laughs> Mais c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, comment elle C'est une personne spéciale en fait. nit ku baax ku rafet xol ku humble ku amul benn problème koo xamante ni dañ ko sonal. Mhm. kooku man maa ko gën a sonal si kaw suuf. <laughs> amul benn nu ma ko mën waxee sax. Euh, Euh, jalousie interne boo xamante ni seen diggante. wala des fois aussi nit ñi li ngeen di jot. on est une famille ici. Mhm. gis ngeen ni ngeen ñu fi fekkee yéen ndox ñun. ñooy fanaan ñooy famille. Mhm. comme nga jóge sa kër rek ñëw si beneen kër. Mhm. fii suñu kër la ñun ñëpp benn la ñu. lépp rafet. macha allah en tout cas merci beaucoup kontaan nañu. ñu bàyyi la nga nuyoo ak euh, sa ay fans. merci kontaan naa trop sa interview bi merci à vous yéen ñu toogoon di ñu seetaan nuyu naa leen bu baax a baax. merci c'était Ngoné donc série famille sénégalaise ba léegi dañuy wéyal waxtaan bi je pense qu'on a pas encore fait le tour des actrices donc Fifita dafay wéyal li nga xamante ni moom moo ci des euh, dañ jël ba yegg fi nga xamante ni moom mooy équipe de production bi ñoom tamit ñu wax nu vraiment naka la ñuy liggéey ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy actrices yi merci beaucoup euh, Ngoné donc ñu jëlaat keneen ciao